demam nga umpuna mindéef te um na boppub kuy mindéef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar ne xiim bismillahi rahmaani rahim sëñ bi jóge ci sëñ Ahmadul Maxtaar mu tànn ay doom yabal nu ci njabootu sëriñ Tuubaa gi ci màggal gi muy bëgg a def ci bii di ñëw yàlla def na màggal gi ren day dajeek téeméeri at yi hmm. te xam na ne màggal gi màggal gi Sëriñ Tuubaa la hmm. mu ne woon comme que dafa am beneen cachet bu bees ci màggal ndax téeméeri at yi muy dajal hmm. bëggoon na njabootu Sëriñ Tuubaa gépp yëg ko ànd ceeg moom ñaanal ko ba li ñu ci bëgg ca saare ci lu bari ci sëñ bi ba lu bari sëñ bi lépp lu bari xam nañ ko ci moom waaye am yu bari yu des ñu xamul ci moom beaucoup profité ci magal gi nak hmm. def ay conférence yu bari hmm. ak i panel yu bari hmm. pour ay borom xam-xam yo xamni ni nañ len muy ci bir murit gi ak ñeneen ñoo xam dañu murit sax ay professeur yépp dal ñu am thème yu bari ñu tan yo xam bëgg ko waxtaan señ bi lool nak mo mo waral suñu ñew fi ñun ñun ñi ñëpp sa yakana sa doom fi nek yépp xam nga ñu ñëwoon nak sàkku sa ñaan ak say xalaat eh, ci ci turu sëriñ bi nag niñ ko xamee lim fi nekk lépp liggéey bi mu fi liggéey bépp dara desu ci lépp mat na ba am ngërëmul boroom ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam bi mu doon liggéeyal dëkk bii nag di Touba di dëkk bu mu bëggoon lool waaye suñ boroom natt ko ci itam ba ni nu ñu ko sëñ blaat nettali te ñëpp dégg ko moo juróom-ñaari rek la fi am mu génne ko fi tukki yim tukki yëpp it ak fi ñu ko yóbbu fépp it wax ju wax rek buy tudd Touba dana wane ne dëkku boppam la ndax boppam rek la ko moomale mu amoon projet bu magit ci dëkk bi ndax Matlabul Fawzayni projet la boo xam ne bi mu koy def eh, booba dara nekku ci dëkk bi Eh, fi mu nekkon di def bi muy ñaan ku fa nekkon itam da ngay japp ne boo borom gis-gis da ngay japp ne ak lo am am xam-xam da ngay japp ne señ bi kat li muy wax du lu mëna ne ci jamono jooja eh, bu mu liggéeyee nak ba sun borom andi ko njaareem eh, mu denkané itam ak njabotam ci njitul Cheikh Mamadou mustapha ak rakam ak yoon ngir ñu andi ko waxtu jamono soppi ko loolu itam mu am lu mu leen ci diggoon ci bu amee bu ñëwee tubaa te xat demut lépp lu ñu sumbati lu ne dana sotti ba ne coleet su amut nag coono rek kay am ndax moom loolu du ko wàññi dara njaboot gi nag ci njiitu sëñ Modou ak seen yitte fexe ba ndigalu sëriñ boobee ni ñu daan defee ndigalam ci waxtu worotee ñu ñu konon, ko noonu boobaak légui nak di ci eh, ci wam sasin muharram bi ñu jëm mo tollé ak wam tasin muy téméré at sëñ bi nak ñu waxé légui kilifa yi wax ko modi di ab liggéeyam lépp rafet na defar na aw nit ñoo xam ne mën nañoo yor jamono ñu mën nañoo jiite jamono loolu nag lañ bëgg a wone ci ndigalu sëñ ahmadou ci ndigalu luñ jële ci sëñ ñu won aduna rek ne sëriñ bi kat liggéey ni lim wara liggéey sing waye ñu fi bayyi ñepp li dalé sëñ Mour Moussa sëñ Fallou Abdoul Abdoul Khadir Cheikh Mamadou Amin sing Sidi Mokhtar ba ci Muntaxa mi ak njabootu sëñ bi yépp kenn ku nekk liggéey nga liggéey bo xamne ne buñ tek a teg la ci euh, domaine yu wuté sëñ am wax nak ne loolu lepp nak suñ ko bëggee waxtaanee mënuñu ko def ci bisu magal kon nañ sak yenen bis moo xam ci réew mi la wala bitim réew nu fu ko mën a defee fexe daal ba tas euh, wax euh, jëf yooyu ci domaine yu wuute yooyu lu nañu waxtaan ca te tànn ay borom xam-xam yu mën a waxtaan ñu waxtaan ca loolu nag li sëñ Cheikh Aziz wax sëñ bi waxoon nag ne nañ ñëw ci yéen ndax xam nañ euh, taxawaay bi nga am ci yoon wi mu yàgg leen a ñor ci wàllu xam-xam ak gëstu ngeen daj ci lu ne ba doon bokk ci ñi nga xam ne mën nañoo jàpp ne ay delluwaay lañ ci sëriñ bi ak ci yoon wi ci ci anam yu yëpp nag ci anam yëpp euh, sëñ bi wax nag ne loolu euh, dana am solo ñu ñëw fi yéen taatan ci yéen ay kàddu ngir loolu mu bëgg a tasaare lépp de dara génnu ci sëñ bi ak wane ko ndax euh, sëñ bi moom ni ñuy wax rek kenn kenn kenn kenn bañu ko xëy na maanaam mënees na ko umpale nag. kon nag ñi fi nekk ñoo war taxaw ci nu nit ñi xame sëñ bi ndax bëgg ko ndax moom zanafn bi dara daralin la maanaam moom da moom moom njariñ la lu àndut ak lor hmm. lu mu doon ci àdduna nag mën naa am njariñ mën naa am waaye sëñ bi moom njariñ la lu kon nag eh, bu ko ñëpp xamee eh, danañ ko bëgg te suñ ko bëggee dana njariñ waaw kon loolu daal moo doon moo doon tànk yi eh, di ñaan itam nga ñaan ci bu baax a baax ndax ab défi boo xam ne àdduna soxla na ko te itam euh, lu baax yombut waaw te fu ay nit ñu baax jóge ngir bëgg lu baax xëy na euh, góor mag moom dana gembu fas yéene euh, lu mu gàllankoor donte sëñ jëflante na ak moom rek ngeen ñaan ci daal ba ñu ko kilifa yi bëggee ci wane sëñ bi ak tasaare ko ñu amee ca ñu amee ko ci noonu te lépp nag ngërëmam rek lañ ci so lañ ci sàkku wala barakaatu ñu ngi jiital ci nuyoo bi sëriñ Ahmadul Moxtaar suñ mag ju baax juju nga xam ne moo leen fi yebal di ko siyaare bu baax a baax a baax a baax ci lu rëy lii nga xam ne moom lañuy waajal te di ko waajalal yoon yépp ndax mbirum yoon wi la moo xam mbirum sëñ bi la mm-hmm. te amuñu loolu sëñ bi mm-hmm. te ginnaaw yàlla tawfeexal nañu ba ñu fekkee téeméeri atam mm-hmm. war nañoo sant yàlla bu baax te it day mel ne màndarga la nag moo xam ne war nañoo soññ war nañoo yokk suñu itte ci ñi ngir ñu ngir xamle ko ba ñëpp xam ko loola kon ndax juróom fukki at màggaloon nañ ko bañ ca tolloo muy 77 biñ te agsee fii nag ngeen indi dat bi nga xam ne sax moo dëpp bi nga xam ne mooy la sëñ bi wàññee mooy weer yi tamxarit bi muy téeméeri atam loolu moom muy lu réeréeri sant nañ ci bu baax a baax a baax a baax a baax ñi ngi ñaan ñu àgg ci ak jàmm te liñ ci yéene sëñ Ahmadu yéene ko ci ak mbooleem njaboot gi mu ko ànd gépp muy mbirum sëñ bi gën cee fese ñu gën koo xam yàlla na ko ci yàlla def ndax sëñ bi moom loo gën a xam ci mbiram gën a jariñu lu ni toll lu ko réew mi gën a xamit réew mi gën a jariñu lu ko jullit ñi gën a xamit jullit ñi gën a jariñu te moom njariñul jullit ñi la la la doon ñaan waxtu wu ne damaa jëlale ñi ko aji ci moom waaye waxtu wu ne mi ngi naan najji ayaalal Mustafa baada salah maa salaamin min idaahum alxula yasir lahum bihi alladi bi la def muy ak njabootu mu ñaanal leen ñoom ñëpp leen ci fexem noonu te lu ñuy wut lu ñu mu jàppandi la kon kooku xam nga ne fàttewul njaboot njaboot wax na feneen nahnu ayaalu wal ayaalu ajdaru bi an bi xayrin yandu mm-hmm. ñun ñooy ñooy njaboot bi te njaboot mm-hmm. boo yoree yiw wu raar wu néew mm-hmm. njaboot nga ko war a ah, kon fàggul da fàgg na lu ma ta fàgg kon bis bi nga xam ne moom lañ koy fàttalikoo na ngeen ko yaatal bu baax ni te ñi ciy waxtaan nañ doon ñu xam sëñ bi rek ba mën koo leeral sëñ moom lépp loo xam ne si ki ko wax gëstu na ko mhm. te teg ko fu wér mhm. nopp bu duggee ci nopp ci xol lay jëm waaye dugg ci nopp bi génn ci nopp bi lépp loo xam ne am njàngaleem la mhm. loo ci leeral bu duggee ci ci ci nopp ci xol la jëm loolu wér na moo ko wax bu duggee ci nopp boo ko jottalee bu duggee ci nopp ci xol la jëm kon ndax léppam dafa wér léppam loo ñuy fexe da cee nekkut lépp yàlla la ko jëflanteel liggéeyal ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam liggéeyal ko yàlla ñoom ba muy dénkaan it ñoom la dénkoon moo tax noonu nga ko waxe nafsi wa diini suma ahli wal walad wa maskani laka wadi'atu dëkkam bii ak diineem jii ak waa këram ñii ak njabootam gii ñëpp maase naa ko teg ci loxo yàlla yàlla mi fi du jóg kooku nag mooy wootu na ko ci ndax bi si bi ñu indi sëñ bi Tuubaa gii kat booba kër yi mën nañ ko wàññi booba de boo boo nee Daaru Minam ne leew na ne Mbàmpa na ne kër sëñ ma sàmb boo dëkk bi daal day daal jeex daf fu ci ne ay kër la sax yoo xam ne sañ bi tànn ñi fi ne mm-hmm. yabal leen ne dem leen di ma ci sama dëkk mm-hmm. waaye boobu dëkk bi xumbaay bépp njaareem la moo xam bu waaye Tuubaa moo xam mm-hmm. bëgg sëñ moo doon taa tànn rek léeg-léeg mu seet ci waa kër ci donga yi rek moo ko ñëw ci ñuy ñëw dëkk di dëkk si waaye bëriwul tax bi ñu koy indi Tuubaa ñu ko fekkee sax bëriwul euh, te te te bii ñëw tax koo guddee kon sëñ bi noon la doon dunde dundale noonu la doon waajale it dëkkam bii ndax lu bari daana wax ne maa ngi koy bëgg indi ci dëkk waaye daana bañ ñi yàq jiituma fa damay nekk ba ñu ba ñibbisi ci dëkk ba boo nag nit ñi xamuñ gi muy wax waaw moo tax xéewal yépp boo gisee ci matlul fausin sax bi ñu naan wam nun xalal ahli la wax nga xam ne kon xam na ne boo du ko fekk bi maa in jaari waaw <laughs> xalal ahli la wax ndox muy daw xam nga ne xam na xam na ne xalal ahli la loolu lépp gannaawam lay ñëw li mu doon sàkku lépp xam na waxtoo muy ñëw xam na it wax waa ñi koy jariñoo kon li mat a def mooy eh, ngeen góorgóorlu ci borom xam-xam yi ko mat a yëg yëpp bu leen ci gàttal ñi ko war a yëg yëpp nañ ko yëg ndax biñ ko fi njëkkee def kat ñu bari ci lañ xamee sëñ bi ba moo leen mooy seenu sababu ñu tàbbi ci yoon wi te na ndax njàngale mu wér lañ leen ci jàng ndax sëñ bi moom nee na moom soxlawuñ soxlawut ko ko propagande ndax eh, ki may wooteel ana ana fu mu mas a dem mm-hmm. am kuy wax ne ñëw leen jébbaloo ñëw leen jébb sëñ bi nag ana kooku mi wax na bàyyi nañu wax mm-hmm. man ki may wooteel a gën a jot baat kooku mm-hmm. mu yàlla kon moom waaw waaye nag mbiram kuñ ko leeral mu tàbbi soxal te comme tàbbi soxal nga jariñu te yéene nañ njariñ ñépp kon na ngeen ko fexe ba yaatal ko ñu liñ ci war a euh, wax ñu wax ko luñ ci war mat def ñu def ko ngeen xam ne moom lu mu ku gudd fan da ci teg sa bët loolu moom mm-hmm. sama turandoo suñu wul sa daa lu ma wër ne sëñ bee wax mm-hmm. moom la euh, li ma teg sama bët mm-hmm. li ma wér ne sëñ bee wax te gisaguma ko laa gën doyloo ci waaw kon kon nañ roy ci loolu xam ne ñoom dañoo xamoon sëñ bi jaaxle musuñu ko am ndax xam nañ ne sëñ bee yoral boppam mbir mi moo tax musuñoo jaaxle sëñ Moussa bi toog yëf yi jafe na lool waaye nee na mos a jaaxle wóor na ko ne nee na sëñ bee yoral boppam yoon lu mat a def rek moo lay sagal rek boo ci jëm rek mu daal di ubbil mu daal di sotti kon nag nañ góor góorgóorlu bu baax ci bis bi góorgóorlu bu baax ci yaatal ko góor góorgóorlu bu baax ci fexe ba ñu xamee ci ci sëñ bi lu bari luñ ñu xamee utoon waaw ndax moom kat bind na mag ñi ñu baree bari ñu wér ci mag ñi bind nañ moom sëñ bi bind na ci xasay bind na ci loxoom lu mat a bind jëf na it ñu gis kon daraam daraam ci taarixam xanaa lu ak seegul rek waaye dara daraam wërta réer te du mën a réer waaw waaw kon nag yàlla na nu dimbali ñu am tawféex yi di gën a am ci moom di gën a di gën a dimbali nit ñi ba ñépp mën cee jariñ ndax sëñ Abdou Xaadir dañ ma sëñ Faatu toog ñu naan ko diw dafa dafa ñàkk jublu sëñ bi mu ne dee tuub ko loolu kenn du ko wax da ngay wax daa ëmpali sëñ bi daa umpale sëñ bi waaye sëñ bi kooku umpale njariñal kese la lu ànd ak lor umpale daal koy daal koy bëgg <laughs> kon sëñ bi mel na ne koo ko leeral ba leer ko rek mu mu mu bëgg te bu ko bëggee rek daanañ daal di jariñ te moom li mu yéene mooy ñëpp jariñ njariñ la lu ànd ak lor njariñ lu ànd ak lor nag kuñ ko leeral rek saxal na waaw kon nag yàlla na ci yàlla àggale bég nañ ci bu baax a baax a baax a baax ndax euh, euh, liggéey bi liñ ci bëggoon mooy lii rek mu wéy di gën a jëm kanam lu mujj dàq te loolu te loolu fàggu na ko <laughs> ndax ku fàttali ku suñu wur saa di togge boo ni jamono ji meloon boo ko laajee ci mag ñi ba xam taarix bi booba wute naag tey lool metti woon na lool te waaye nag lu mujjee ñëw rek gën a yaatu ñoom xam nañ ne leen lu leen sëñ bi sant rek mm-hmm. moo tax bi leen sant jumaa ji mm-hmm. tabax bëgg a jumaa ji nii mm-hmm. dëkk ba nga koy def amul ndox nga xam ne eh, ndox ma maanaam nga bëgg a ñemee engagé jumaa nii te te dencoob xaalis loolu ngëm ngëm moo ko def ak ak booloo ehm, ak solidarité loolu na kon mm, moom mu àggale yoonu murit fu mu àgg yàlla na ci yàlla gën a dimbali maa ngi leen di gërëm di leen sant di ko fas yéene ànd ak yéen bu baax a baax a baax a baax te di ci bëgg bu baax a baax a baax a ndax eh, lu luy luy gën a luy gën a jëmmal sëñ bi la te sëñ bi moom lu mbi nit nit yàlla yi njëkk yeeg yañ xamoon woo lu nit rëy rëy may boo doxee téeméeri at rek sa mbir daana tàmbali li mel na mel ne luy wàññi waaw waaye moom bi mu amee téeméeri at bi ci la gën a yees ci la gën a yokk waaw ñu bari sax gàtt na ci moom boo xam leen bu ngeen leen war a mat loolu ndax ndax ndax ni mbir mi màgge ak ni muy doxe waaw ak fas-fas yi ni muy yokkoo waaw kon nag eh, ku ku yàlla beral loxo la leeralal nit ñi bu baax a baax a baax li ma ta leer ci ci li ngeen di def ci Ndakaar ak ci li ngeen def ci Louga lépp waaw mm-hmm. ne sax mm-hmm. jaar fa jaar fa rek ci ci liggéey bi mm-hmm. ci ci lay wane mbirum sëñ bi la ndax fu ci ne sëñ bi ba mu fay jaar metti na waaw Louga ba mu fay jaar jëm ndar bi tar na waaw waaw ñëpp fa jàq am na mag am na mag ñoo xam ne dañoo dox topp ci yoonu saxaar yi rek ba àgg ndar ndax jaaxle ku mel ne sëñ Mouhamadou Lamine Gueye mii jalawan aaxir dëw si noonu la rek ndeysaan daa jaaxal ñu ñëwee Ndakaar it gis ngeen moom nett leen la ko bopp ida dakartu dalika al mabita wa dalika al amira wa subota taarat ila al jihaadi bil nafsi walakin rek la ma sa waxee ne moo ga ak saxal gañ ma fa saxaloon bind na wa subota wa tasbita tasbita moo ñu toog loola fenn subootaa mooy nga sax fenn rek mm-hmm. ñu toog loolu foo mënut a jóg ndeysaan na bu fàttalikoo loolu day bëgg a jóg jihaat mm-hmm. ci xeej mm-hmm. waaye fu ma koy bëgg a defee yonent bi ne ëpp naa def li koy gën a gën a gën a gën a gën a for lépp ba ci njaarim gi ngeen mujj it raamoo masiiri ilaa jurbel la daal la sasi law aayanoo sirra ma fi sirri fi raamoo bi ma tubaab bi jigee jolof ne nañ ma yóbbu njaareem ñoom bu ñu xamoon mbóot mi ni ci yóbbu ma njaareem duñ ko def <laughs> ci la ci la yoon wi gën a yokkoo ñi ko ñi ko doon def ci la seeni pexe yoxame eh, ci lañ tàpp tàmbali di xëccoo ci seen biir di seeti dinañu waaye fale eh, mbirum sëñ bi waaw te bu bu fekkoon nekk na في تين كن أنا ب ب ب ب ب كن فلا واجب لقي كن عندي كفيدنا جهلون يا عايز نجي الله كن آه، جرجف جرجف وصل للحق من الحق المبين لي خادم بان وما ليس يبين وصل للحق من الحق المبين لي خادم بان وما ليس يبين لي علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلخ لم ينصاتي جالب النيران أو جالب العارين في القسران لم ينحني درو نار الدنيا دمم قوم بنا من ديف تور نبا بقي من ديف كد الملاك يقوف أجي الله أتني مكواخ يرن بعد أهل بدر يرين بيرم ديكو دفر moo tax xamee su ca demiinu yonen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàq